5M TV Sénégal. mbokk yi siifur 5M TV Sénégal dal leen ak jàmm Baara di xaritu Adamo di ab tiktoker moom mi nag di Baara génn na wax ci mbirum Khalifa Sall mi nga xam ne Macky Sall daf koo tegab dil mu ne kat loola nekkul benn dëgg Khalifa Sall li ko tax a ñëw nekkul Macky Sall Macky Sall li taxul mu ñëw Khalifa Sall li tax mu ñëw nekkul Macky Sall la. loolu nag Baara moo ko wax ginnaaw bi nga xam ne def na vidéo ci mbirum Khalifa Sall mii nga xam ne dañ koo tegab dil mu nekkul dëgg. Khalifa Sall nag mi ngi yërëmtuloo di jooytu di wax ne maanaam loolu daal nekkul li nga xam ne moom mooy li am Macky Sall defu ko dara moom li tax mu ñëw fii moom nekkul di xamle mu affané bi di wax ne moom mi daal incha allah dara moom li tax mu ñëw nekkul Macky kon mbokk yi xam naa kon jox leen dig daje beneen incha allah ci 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci ànd beeg 5M TV Sénégal ngeen wéy di abonné te partager vidéo yi jaa ngeen ci topp bi ah mbokk yi dund gu neex dafay ànd ak xol bu féex yaram wi di féex xol bi di féex ngir nga mën a dund taw féex loolu lépp soo ko bëggee nag da ngay seet Serigne Cheikh borom taw féex kon nag yow a seet sa yaram li nga ciy wayaale ci ay jàngoro a bi ngay tàmbali di laam-laamee dina baax wala du baax yoon wi ngay wala waa ji ngay bëgganteel di am xel ñaar seen diggante ànd naam àndul wala ndax seeni wërsëg dëppoo na boo jokkoo ak Serigne Cheikh borom taw féex dina la ci gindi wan la fi nga teg sa tànk te li ci gën a neex mooy foo nekk ci réew mi ak bitim réew jokkool ak moom ci téléphone mu seetal la wax la li nekk ci yow waaye Serigne Cheikh taw féex yëmul foofu indi leen jaar bu kiimaan jaar boo xam ne bayre nga ci ubbi ko nga ci ku ne bayre nag na cat ak làmmiñ ndax ku ñu xam foo jëm doo yegg kon nag yemi cat sonal lool say jafe-jafe bëri loo yaakaar mu loo yor toog sa loxo demal nga seet sëriñ Seex borom tawféex waaye yëmul foofu andil na leen garab gu mucc ay baax ci li jaaxal ñëpp muy ndoxum siti bi nëbbu wala bi feeñ di saafara hémorroïde interne wala externe waaye efficace loolu ci néew kàttan ak li làmbool yow mi bëgg a ubbeeku ci sa place yëkkati ko fi ngay liggéeyee baa nga am jafe-jafey fororab wala cororab kon nag jokkoo leen ak sëriñ Seex borom tawféex ci numéro ci 78 639 84 fii e Sénégal